asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp di leen ziyaara di leen balu àq di leen balu àq fas yéenee tàmbali nag liggéey bi nga xam ne moo ñu fi dajale te mooy liggéey boo xam ne sunu kilifa gii toog di alxaaji na Thierno Bousso sumb na ko mu jëm ci liggéeyu maamam ji nga xam ne tey jii moo fi nekk ab xalifaam ci kaw suuf ñuy ñaan suñu borom mu yàggal ko lool te may ko wér muy liggéey boo xam ne nag sumb na ko ànd ko ak rakkam yépp ak doomam yépp di njabootu sëriñ Bosoobe ak njabootu sëriñ Saa Buso muy fas yéene yeesalaat barabu sëriñ bu bi bii ba mu mel ni mu war a mel ci méngoo ak fi jamono toll liggéeyal ko kër goo xam ne këram lay doon fii ci barab bi ci sowu barab bi loolu nag am na ci ndigal lu bàyyi koo ci Cheikh Sidil Muxtar alxalifatul am di taifatil muridiya ñuy ñaan suñu borom tëbb ko wér ak kàttan ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Touba lépp mu liggéeyal ko ko te nu ànd koog moom yebal fi rakkam ju baax ji di sëriñ Serigne Fadilu Mbàkke moom Cheikh Abdul Xaadir mu fas yéene teg xeer wi ci ndigalam ci biir loolu nag ñu bëgg bala ñuy egg ci xeer yi ñu tënk tënk bu gàtt ci ay waxtaan yoo xam ne bokk yi danañ ko fi jàllale ci turu sëriñ bi ci njëlbeen nag dañuy jox sëriñ alxaaji Fall bu sa Ceerno mu defal ñu tënk bu gàtt rek ci ki tax ñu daje fii tey li ñu mooy kan muy sëriñ bu soobe ci diir bu gàtt su ko defee nag ñu door a àgg ci kàddu yi ci jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla tabaraka wa taala julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xamante ni ñoo teew ci jataay bi di ay kilifa yu màgg yoo xam ne fu ñu wàcc rek ñu fay yaakaar yërmande yàlla ak barkeem yàlla na ko sunu borom def di xam ne ne kàddu gi def ñoo bett lii biig rek laa ne naa ko bind téye waaye fii ndawe nañ fi ndawe goo xamante ni Eh, yaakaar ma ne war nañ fee mën a jël kàddu waaye ñi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu jàppale ñu ba ni ko kilifa yi sàkko ñu defee ko nu mel noonu wala lu ko raw di xam ne ne dikk ngeen ci barab boo xamante ni barab bu am solo la bu am wàccuwaay itam ci taarixul muridiya ndax barab boo xamante ni ñett ñi Euh, abdullahi wa xadimu rasulihi alayhi salaatu wasalaam woowoon ba muy tàmbali liggéeyam bu mag bi mu yëngatoom bu mag bi nga xamante ni moom la ñuy wax almuridiya dafa woowoon ñetti ñoo xamante ni seen barab yaa ngi ni làng muy a seykh Mouhamad muy a maam Malabine Mati ma nga ne muy a seykh Mouhamad al Mbusoobi muy maam Serigne Mbusoobi woo leen ci garab gu nekkoon ci fu wut fii ne leen maa ngi waaja woote ak yeesal sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax leen ca lam ci leen ca wax barab boo xam ne nag ñoom ñoom ñëpp seen barab yaa ngi nii rangaloo ku fi dikk kon dikk nga ci barab boo xamante ni jar naa dikk waaye nag ñu xam ne ñoo ngi sant yàlla tabaraka wa taala ci baaxe gim ñu boo baaxewaat bañ bokk ci ñi nga xamante ni ñooy delloo siwaat mbég ci suuf su mel nii ak pàkk bu barkeel bii nga xam ne yaakaar naa ne yëg na tey ne aw yiw ak nit ñu baax del siwaat nañ fi kon suuf su mel nii nag ñoo ngi lay ndokkeelaat bis ne ko tey ngir laab gi nga laab suuf soo xamante ni ñi daa daagu ci kawam mooy nit ñu baax ñi fi jiitu woon te bokkoon ci waa Mbàkke ak Mbusoobe te ñeen cee jiital mooy maam Maaram Mbàkke ak doomam yu mag ya ak maam Sëriñ Mbusoobe ak maam Mor ak nag Abdullahi wa Xadimu Taha muy a Seex Ahmad Bamba radiyallahu anhu suuf soo xamante nag ñoo ñoo fa tëdd suuf su jara màggal la su jara bàyyi xel la te mooy fii ñu nekk kon nag kilifa yi fi teew yépp ñoo ngi sàkku ci ñoom ñu tàllal ay loxo jëmee ko ci yàlla tabaraka wa taala mi suñu borom ngir sàkku ci moom mu dimbale ñu ba projet yu mag yi nga xamante ni ñu ngi ko fi taxawal ñu yeggale ko ci jàmm ak salaam ñu yeggale ko ci jàmm ak te daje itam ci ak ngërëmal ñi tax kilifa yi di taxawal lu mel nii waaye nag lu mel nii su amee am nañu ko sabablu xam nga e, meeru Mbàkke muy Seex Abdu Ndaw mi ngi ci jataay bi dafa am yéene te di ca dox itam nag ngir bëgg fowukaay bi ci wet gi tuxoo fi te bu ko defee itam bu ko yàlla dogalee ci ay loxoom itam def na liggéey bu rëy rëy ndax ab fowukaay wul te jege kilifa yu màgg yu toll nii ci wet gi kon ñoo ngi ñaan yàlla mu dimbale ko jàppale ko itam ñi ko féete kaw itam ci wàllu nguur gi itam ñoo xam ne loolu muy dox lu mat a dox la ñoo ngi koy ñaan yàlla mu am ndam ci loolu di xam ne itam alxaaji Ceerno Buso mi nga xam ne ñoo ngi ñaan yàlla mu yokk aw fanam yokk ak wér-gu-yaram dafa taxaw ngir amal projet yu mag yi te bokk na ci ni ko ab Abdul Ahad waxee yeesalaat barabu maam Serigne Boussobe bi ak taxawal fi kër ak Serigne Boussobe loolu daf ko bëgg bëgg ko ànd ak mbokk yépp ak taalibe yépp ak képp koo xamante ni lu mel nii ñor na la te ka jiitu nag mooy as Seex Sidi Muxtaar Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal ñoo ngi ñaan yàlla kon mu yeggale ko ci jàmm ak salaam waaye ñu xam nag ne maam bu soobee mi ñu fi dajale dafa nekkoon koo xamante ni kilifa gu mag la loola daanaka waxit la ndax koo xamante ni Maba Jaxu Ba bi muy woote jihaad ba mu gurguree sëriñ sépp dajal leen fee fee ca Saalum ba mu waxee sëriñ si fob leen ku ngeen di jiital sëriñ sa ñëw wëlbati ko ak tànnaat ko moom maam sëriñ Bousso bi teg ko ci seen kanam loola doy na kon ci wàccuwaay ba nga xamante ni am amoon na ko ci wàllu xam-xam ak maandu ba kilifa yëpp doy la woon ko teg ko seen kanam loola rek buñ ca yemoon doy na waaye sunu borom baaxewaat ko itam muy koo xamante ni ku amoon wàccuwaay la ci sëriñ Touba radiyallahu anhu sëriñ Touba itam daan diisoog moom ci lu ne ba nim fi jógee nekkoon koo xamante ni itam bokk na ci ñi sunu borom doon bàyyi xel xamal sëriñ bi ne ko bu fi jógewul rek natt bi nga nar dal ci sa kaw. lu dal ci sa kaw ndaxte bu ñaanee yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangu ko loola itam beneen wàccuwaay la waaye sunu borom baaxee ko itam ak njabootam ñi ci ëpp ñoo ngi ci sant yàlla tege ci aw yoon tege ci njub nekk ñoo xam ne aima fi diin la te loolu yombul ndax maam sunu Ibrahim maam Ibrahima nabiyullah Ibrahima alayhi salaam sunu borom dafa wax àqam ne wa id bitala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qaala inni jaa'iluka linnaasi imaaman qaala wa min durriyati qaala laa yanaalu ahdi addaalimin ne na ko yow ibrahim danaa def keno nekk def la njiit ci diine yonente yàlla ibrahima ne ko ndax noonu nga ma koy defee sama njabootam fi nga leen di jaarale ñu am daraja ju tol noonu sunu borom ne ko nag laa yanaalu ahdi addaalimin xanaa ña ca kon ñu xam ne loolu ku yàlla baaxee ba nga bokk ci sëti maam Serigne Bousso bi mi te ay sëtam yaatu lool ci réew mi rawati ci dëkk bi loolu lu ñuy sant yàlla kon ñoo ngi ñaan sunu borom tabarak wa la lii nga xamante ni e, ñi fi jiitu woon alxaaji Thierno Bousso ci ay xalifaam bëggoon nañ ko waaye sunu borom tabarak wa taala lu muy def day am sabab yàlla na ko yeggale ba am ci ngërëmal maam Serigne buso bi am ci ngërëmal magam yooye am ci ngërëmanam tam rakkam yi mu fi nekkal ak njabootam ak i sëtam sunu borom mën na loolu yàlla na ko def ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu ci njuumte amee ñoo ngi koy jéglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa dañu dañuy daal jàll rek ci xamal leen ne kilifa yi fi teew bokk na ca sëriñ bu Bousso yi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Bousso bi mi ngi ci jataay bi jiite liggéey bi woote ko tam naka noonu niñ leen ko waxee woon léegi cheikh Mouhamadul Fadil moom sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne moom la seex Sidil Muxtaar yebal ngir mu teg ci xeer wi ànd ak dend ak rakkam cheikh Ahmadul Rafaa yi moom cheikh Mouhamadul Fadil naka noonu itam sëriñ Baara Bousso di rakk ci sëriñ Abdoulahi Bousso mi ngi xalifab sëriñ Saa Bousso di sëriñ Baara moom sëriñ Baara moom sëriñ Saa Bousso mi ngi ci jataay bi ak mboolem jabootu sëriñ Bousso bi yëpp xalifa sëriñ Cheikhu Bousso. di sëriñ Moustapha Bousso mi ngi ci jataay bi ànd ak njabootam gépp taxaw ci taxawaay bu rafet ci liggéey bii xalifa alxaaj bu so sëriñ Omar so sëriñ Mouhamadul bu so mi yore doom mi ngi ci jataay bi ànd ak njaboot gi yépp xalifa sëriñ Masamba Faati di bàyyi sëriñ Bousso be Bousso moom it yebal na sëriñ Moxtaar ak mboolem njaboot gi ñu teewal ko sëriñ Abdourahman Ñang mi ngi xalifa soxna Xari so mi taawu sëriñ Bousso bi bu jigéen moom itam mu ngi ci jataay bi njabootu soxna Awa Bousso itam sëriñ Xaadim Ñang ak sëriñ Ahmadou Rafaan yi moom ak ñi ñu ko seqal waa kër soxna Marème Kunta sëriñ Cheikh ñoom it ñi ngi ci jataay bi ak njabootuk waa kër sëriñ Bousso bi yépp li ko tàmbalee ci sëriñ Cheikhu Rafaan Ñang sëriñ Alxaaji Bousso accu mi ngi fi ak sëriñ sëriñ Omar so njaboot sëriñ Masamba Kan ni ñoom it ñi ngi fi ñoom ñëpp sëriñ alxaaji mi xalifa bi mi ngi ci jataay bi njabootu sëriñ Mbàkke Kan ni ñoomit it ngi fi ñoom ñook sëriñ bi ñoo ànd ñoom ñëpp euh, ñi ngi fi ci teewaayu sëriñ Amdi Moustapha Bousso ak ay rakkam sëriñ Mouhamadul Mamoun ak sëriñ Basiru ak njaboot gi gépp waa kër sëriñ Omar Jëmb moom itam sëriñ Ibrahima mi ngi fi ak sëriñ Cheikhouna ak njaboot gi gépp waa kër sëriñ Aliou Bousso ñoom it ñi ngi ci jataay bi mboolem njabootu sëriñ Bousso bi daal ak mboolem njabootu sëriñ Saa Bousso ñoom ñëkk ñi ci biir dëkk bi ak ñi mbirkilaan ak ñëpp ñu ngi ci biir jataay bi teewe ko ànd ak sëriñ Thierno ci liggéey bi dañuy tàmbali rek kon sëriñ Hamsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu bu moom itam yabal na fi délégation bu am solo sëriñ Cheikh Baara Mbacke moom sëriñ Abdoul Ahad moo fi waroon a moo fi war a teewal sëriñ bi sànq bi ñu mujjee jokkoog moom mi ngi ci yoon wi. waa agsi na sax wax nañu ne agsi na. moom sëriñ Modou Assou wax nañ ne mi ngi ci jataay bi moom itam ak sëriñ moo fi teewal sëriñ Abdoulahi yàllaay buur moom sax bokk na ci ñi war a jël kàddu kon dañuy daal di tàmbali rek waxtaan wi sëriñ Abdoulahi Jaxate waaye kooku nag daf fee teew ñaari teewaay. teew na fi teewaayu teewal fi Touba gépp ngir moom la ko sëriñ bi teg ci loxoom mu teew teewaale njabootu waa Touba gépp mboolem chef de village yi nekk ci Touba ak chef de quartier yi yëpp mu teewal leen waaye teew fi nag teewaayu bokk itam ci mbir mi te taxaw ci taxawaay bu rafet ànd kook ñi nga xam ne ñoom la ko seqal muy ay bokkam dañuy ubbi nag kon waxtaan yi tënk ay waxtaan yu gàtt nii lañu bëgg mu te tëbal murit danañu ko jox kàddu mu ubbi liggéey bi moo bi euh, dal euh, moo bi waxtaan wi su noppee danañu jox ki fi teewal sëriñ Abdullahi ay buur mu jotli ay kàddoom moom itam kon foofu la ñuy tàmbalee. bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew mi nga xam ne moo ñu jox jël kàddu bi turu teew fi. teewal fi Cheikh Sidi Mokhtar ci ginnaawu Serigne Fallou mi nga xam ne moom la jox ndigal ngir mu teg xeer wi ginnaaw ñu fi ne ñëpp nag ay bokk lañu yoo nga xam ni xam nañu leen ñu xam leen te xam nañ seen yéene ci sëriñ bi xam nañ yéene sëriñ bi ci ñoom lim bi du yomb waaye maa ngi jël nuyoo boobu di ko jox ci di ko teg ci loxo sëriñ Thierno Bousso ak sëriñ Modou Mamoun mi nga xam ne mooy imaam ji ak Abdou Mbacke Ndaw mi xam ni mooy meeru Mbacke ma jël nuyoo mboolem ku fi teew di kilifa di taalibe di xarit di soppe di wëllëre góor ak jigéen may jël nuyoo boobu di ko teg ci seen loxo mu bàyyi ko ci Cheikh Sidi Muxtaar muy nuyoo ak ñaan ak cant cant gi nag daanaka mën nañu li ñu waxtaanee lépp ci lay jëm ndax cant gi mi ngi tàmbalee ci sëriñ Thierno mi nga xam ni yàlla dogal nag mu toog toogaayu sëriñ Mbusoo bi xalaat lii ànd ko ak bokk yi ñoom ñëpp ñu juboo ci ngir ñu yeesal bërëb bi nga xam ni euh, bokk na ci bërëb yi nga xam ni tey lu ñu tudd ci yoonu murit la ko fondement ci la bokk tam doon béréb boo xam ni sëriñ Touba moo ko joxoon sëriñ Mbusoo bi yàlla dogal mu jóge fi ñu denc ko ci béréb boobee kon defe naa lu Sëriñ tubaa joxe du ràpp bu mukk loolu moo waral ki nga fokk ñu defar ko waaye ki nga xam ne moom la xelam dem ci defar ko mu ànd ak njaboot gi ñu nangul ko ko ñu di ko defar loolu moo waral sëriñ bi ci sant njaboot gi bu baax a baax ndax kenn ku nekk yaakaar naa ni fa nga féete la nga xam ne moom la fa Sëriñ Tuubaa jëmbatoon samp ko fa boo ko yeesalee waxtu wu nekk nga di ko saytu defaraat ko ba mu mel na mu war a mel kenn ku ne defar fa mu féete bu yàggee dara du sooxe kon sëriñ Thierno sëriñ bi nee mu ngi lay sant bu baax mu ngi sant itam Abdou Mbacke Ndaw ndax yëg na jéego yi nga xam ne def na ko ci ak ci kër sëriñ Touba gi mu joxe ak yooyu yëpp yëg na jéego yi waaye moom bu ko defee itam boppam la ko defal ku ne ci ku ne ci tool di bay te lu fa ñoree ña koy buñ koy dundee kenn du la ca ëpple bu ñu wootee añ woola bu ñu wootee reer woola loo def ca tool ba des na la sant de ndax àll mutt na mat ñu ne ah kay ndax àll bi waroon naa mat ëmb ko kon nag ñoo ngi lay sant sëriñ baa ngi lay sant bu baax di sant sëriñ Thierno bu baax di sant mbokk yi itam sëriñ Basiru itam waroon na fee teew wante yaaga ragal naa ni am na fu mu xëy loolu moo waral teewaay bi amul waaye bu mu fi teewee teewal fi sëriñ bi mel na ne teew na fi kon ñoo ngi digal nit ñi lu ma wax sax ñoo ngi digal damay wax ne ñoo ngi woo nit ñi ci liggéey bii te xam ne kat liggéey yépp am solo waaye nag nit bu amee dara la ko may loola daa war a xam lum doon te kenn ku nag xam na ni sëriñ Touba lu mu am may suñu borooma de waaye jaar na ci loxoy soxna jaar busa te soxna jaar busa it ña nga xam ne ñoo doonoon ni kilifaam ak ña nga xam ne ñoo doonoon ni bokkam taxawu ko mu ñëw ci Mamor Anta ba añ bu rëy bii am fi ñooñee kenn wër leen a gannaawal ñooñee war nañ leen di fàttali ko waxtu wu nekk guddeeg bëccëg suba ak ngoon ndax kat wolof njaay day wax ni lëg bu lekkee aloom na ko gërëme coy moom ma yéeg ca kaw di yëngal ba mu daanu ba mu mën koo mus ndax bu bu daanu wutoon ci suuf du ko laal kon nag ñi nga xam ne ñoo daroon soxna jaara ba mu liggéey liggéey bu réy bii nga xam ne àdduna sëpp a koy jariñoo fi mu nekk nii xam ne ku bëgg jàmm sa xel dana dem ci sëñ Touba lu nit ñàkk ñàkk jàmm wala nga am jeneen yéene ba ñëw ci kër sëñ Touba boo ñëwee li nga fiy fekk moo lay yeddaat nga dellu ginnaaw ci la nga nekkoon te waxoon te du ma dañ nag di ko wax ndax fu ma dem itam mën naa koo fàttali. damaa wax ni yéen ñii nga xam ne yàlla dogal na sëriñ Bousso bi ñi leen ak mboolem lu aju ci lu jigéen maam jaar busu di bokki sëñ bi xoolu leen bokk sëñ Mbàkke Bousso ak ñeneen ak ñeneen nañu defoon ak ak sëñ sëñ sëñ sëñ mu dem sa njaareem ak ku mel ni sëñ Ndaam Abdourahmane Lo ku mel ni Maam Thierno ku mel ni sëñ sëñ Massamba Diop Sam ku mel ni sëñ Ibrahima sëñ sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye noonu lañu defoon nga xam ne boroom xam-xam bu ne ca bitti wala nitu yàlla ku ne ca bitti boo déggee ni ñooñu ñu ngi ci ginnaaw sëñ Touba dootoo jeex sëñ Touba ndax da ngay xam ne ñooñu doy nañu ab tegtal yéen ñii nag dox boobee ngeen di dox ndax damaa wax ne sori du bëriwuñ lu ñu sori sëriñ bi de waaye bu ñu joxee joxe addiya kenn mënu leen ci mosoo bu ñu dee liggéeylu kenn mënu leen ci buñ dee defar mbaa ñuy wax wax ju rafet mbaa ñuy doxu bokk kenn mënu leen ci bu ñu demee ca kenn mënu leen ci bu ñu demee ca daara ja kenn mënu leen ci bu ñu demee ca jàngale xam-xam ba ak former doomi nit ñi nga xam ne fu ñu teew dañoo fa war a représenter sëriñ bi bu ëllëgee kenn mënu leen ci ndax dafa naa boo doon seet ci Tuubaa ñi nga xam ne dañu fee am xam-xam ba mën a wax ñu du ko dégg te te te laalu leen ca néew na loolu taxawaay boobu nag bu ngeen ci yemoon doy na sëkk waaye da cee boole di joxe seen alal guddeeg bëccëg suba ak ngoon lu dangeen ko joxe bay rocceeku di indi addiya yoo xam ne jotewul ak loolu dara te loolu am na ñu bari ñoo xam ne xamewuñ ko noonu yi li leen sëriñ bi dënk soxna so eh, soxna jaaral nekkoon ci ngeen taxawee ko ak taxawaayam muy jàng jàngale jàkka ja liggéey delloo leen ci ginnaaw dara yóbbu ngeen ko fa mu war a yegg waaye addiya yi nga xam ne nag nit ñi daanaka moom la ñu moom la puukarewoo ku joxe lu mag jàpp ne loola ca nga war a yam yéen da ngeen a def da ngeen a taxawee sëriñ bi fi ngeen war a féete ba pare di joxe li ngeen war a joxe kon nag sëriñ Cheikh Sidi Moukhtar nee na loolu mu ngi leen ci gërëm mu ngi leen sant yëg na ñaan yi yëg na jàppale gi ci xam-xam yëg na jàppale gi ci alxuraan yëg na jàppale gi ci liggéey yëg na jàppale gi ci lu nar a yàqu ngeen roccee ko dem defar ko ba ci seen gone yii nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji kon ñoo gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah kaddu yu am solo yii lay faral di rotal moo tax sëriñ bi doyloo ko ci baatam ba fu mu war a teew fu ne mu yebal ko fa mu teew moom it seere sotti rek lañuy seeree ci moom sëriñ bi du ko yebal fenn mu yàq fa ab deram lu yàq fa ab deram mooy mu wax fa lu mu fa war a def lu mu fa war a wax mbaa mu def fa lu mu fa war def ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom guddal fanam te wéral te mu yàgg a liggéeyal sëriñ bi yàgg ci ginnaawam ci barkeb sëriñ Tuubaa jërëjëf